تاريخ الشيخ احمد التجاني رضي الله تعالى عنه تشان لا تي يالا لا جوغي يالا كو جوخ جبريل صلى الله عليه وسلم يا جبريل عليه الصلاه والسلام لا كو جوخ عليه الصلاه والسلام مو جوخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد جوخ سيدنا الشيخ لا شيخ لامو كو جوخ تيك نيك موي لي ني نون لازيم بيغا خا مني موم لا ني ديف Mm-hmm. bi ñu demee ba jëmmi jamono te laazim it mm-hmm. joxuñu woon lépp cheikh mm-hmm. ndax yeneen da ko joxoon istixfaar deux cent salaatul fatihi deux cent ci loolu la cheikh nekk di ko liggéey di ko liggéey ba mu mat quatre ans quatre ans nag li tax mu def ko quatre ndax ñeenti arafu muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wara a ku ci ñeenti arafu ahmadi ko araf bu nek sayyidina Cheikh nan géej pendant 1 an ba mu mat 4 ans ci le ko yàlla joxe la ilaha illallah motali lazim bi la ilaha illallah boobu nag moo tax ñu bari dañu wax te xamu ñu li xew la ilaha illallah bi yonentam wootee màkka tawhid rek la woote loolu rek a fa amoon tawhid rek tawhid rek di wax laa ilaha illallah dama laa bëgg yëgal ne la le soufisme mhm. ça date du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bi nga xamee ne toog nañu màkk treize ans fukki at ak ñett di sikkar baatu laa ilaha illallah laa ilaha illallah képp képp amul leneen mhm. xam naa après daal ci ñëwaat yaa ngi ñëw de <laughs> moom la ñu sikkar pendant treize ans mhm. bés la Ali ibn Abi Talibin fekk yonent bi ci biir néegam ñoom ñaar kot mhm. mu ne sang bi damaa bëgg xam yàlla mhm. damaa bëgg jege yàlla foofu lépp tàmbali li ma lay wax nag boo demee ci ifham al munkar al jaani alaaji malik si radiallahu taala anhu indi na xadisu sahaab bi sahdu astafurlah indi na ko mu ngi foofu foofu la yonent bi woowee Alioune dëj ko ne ko tëjal bunt bi ñoom ñaara fay nekk daan naa dégg Baye Abdou di wax ne mhm. sirru ñaara koy séq sirru ñaara koy séq secret way mu tëj mhm, bunt bu toog yonent ne ko jëlal sa ñaari oom yi sës ko si samay ñaari oom te jox ma solo loxo Alioune exécuté mhm. yonent bi ne ko répéteel ñetti yoon ak man Mhm. laa ilaha illallah laa ilaha illallah ba muy ñetti yoon mhm. mu ne ko léegi jógal dem ba fa Alioune génnee mhm. jox ko ñaari doomam Hassan ak Hussein jox ko Hassan Basri Hassan Basri Junayd noonu lay doxe ba ci Moustapha Sanawi Sanawi Mouhamadul Kurdi yu Mouhamadul Kurdi yu mais bi ko yonent bi joxee da ko nag bàyyi ko ndax man maa am capacité jox la ko loolu ci li ñu dégg gum ci man boog li ma dégg gum Alioune ibn Abi Talibin la yàlla la yonent bi sax salaawa sax talxiin baat bi ak Cheikh na Ahmad Tidiane man de loolu laa xamam gisuma keneen te Cheikh bi mu ko koy sa talxiin da ko ko bàyyiloo ba ñeenti at yi mat mu soog ko jox muy lazim bi mm-hmm. waaw kon

مودسلان لازم خدر الجمعة خدر الجمعة شيخكو إليتي كي خلوتي عندكو كي تاريخ بي نيان يونان تبي نكو كي بولي لي موكو كي دوغل كي لن يفت جيغو يوي نيغا بني سي يهاباس نون لكو دانو خي نيات جيغو أغا كي خدر الجمعة سي مانيفيك سي مانيفيك نيوغي جنة دوغنا نيوغي جنة سوخ يفيا جنة نيخ بان سكري بان سكري لا 30 استغفر الله عظيم الذي لا اله الا هو الخير 50 صلاة الفاتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أغلق والهادي لما صبح الناصر الحق بالحق والهادي لا سراتك المستهيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم واو أكسا لا إله إلا الله واو أكدو زوارت كمال اللهم صل وسلم على عين رحمة بمجيخ واو بل سكر مجنج وليك شفر يوي بوكو دجلي واو بوني 30 plus 50 مجخلا 80 80 واي boo ci yokkee douze mu jox la ñaata. quatre vingt douze. mu jox la quatre vingt douze. Mhm. kon Mouhamed dafa toog. <laughs> wallaay wax nga dëgg. Uh-huh. ngi toog. ku fay des yàlla. wallaay mooy centième noonu. wallaay. chiffre boobu nag boo ko jëlee moo lay jox alaalin. Hmm. les hauts. suñu éponge bi nag waroon naa gën a tooy suñu gom bi. waaw mais dina dañ. dina dañ voilà voilà voilà. boo jëlee alaalin. crayon bi. mu ngi ñëw crayon bi te nga ñëw sama wet. jëlal crayon bi. ah waaw ah, crayon bi waaw ñëwal sama wet waaw. Ah. alaalin. Mhm. lii moo lay jox mhm. Mhm. baat bi ñëw na ci alxuraan. mooy les malaaka les plus haut placés. ñi nga xam ne ñoo raw ñëpp. malaaka yu fort yee fort. ñoo raw ñëpp. foofu la la tarixa bi di yëg déglu déggoo déggoo euh, yàlla. ba muy xaatabante ak iblis hmm. iblis loolu la tere su jot ci adama mi nga xam ne maa ko bind ci samay loxo maa man naaka yaa iblisu an laa tasjudu li maa xalaqta bi yadi hmm. lu tax xam nga li ko yàlla wax hmm. istakbarta da ngay rëy rëy lu am kunta minal aaliin mbaa dangaa bokk ci gaa yi maa da bokk ci gaay yi. loolu moom mooy wane ni kon Iblis bokkul ci ñoom. ah déedéet bokkul la foofu la yàlla jëmee ñu Cheikh na Ahmad Tijani. Euh, leer na na nañ balaa ñuy ñëw suñu image du jour. waaw euh, pourquoi le choix de la haylala la le wirdu Tijaan. wax naa wax naa la sànq ma ne la haylala. waaw mais mooy mooy diine bi. Mhm. xam yàlla. ci laay laay la lañ koy xamee loolooy cosaan bi loolu laa leen waxoon damaa bëgg xam yàlla te jege ko loolu laay laay la laal lañ koy defee mat na léegi nag dama lay proposer ñu seetaan suñu image du jour ñu dellu si waat ci ci émission bi daganul ci jullit mu tongu mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan ku ko def ku ko def safara mooy sa cër lu dul ngeen ngeen juboo te baalonte te jéggalu yàlla ndax la ca des nag xàqu yàlla dal na ci tàbbi génn na leen yéen ñaar moo tax bu jëkk fi ahadi sayidna cheikh bi mu soog a làqu rek ci zawaaya yi ca maghrib su ñu demee ba tàllal malaanu wasifa bay bëgg a wasifa suñu gisee ci malaan bi ñaar ñoo xam ne seen diggante ñagas ñagas daf ci nekk du ñu nuyoo duñu du ñu tuddante mag ña dañuy jóg na leen dañ leen di set ne weñ ci soow ne leen génn leen ndax kat Cheikhuna Tijaani nee na fépp foo xam ne lal nañ fa malaanu wasifa sama ñaari taalibe ji njaboot nekk fa di tongoo tongoo ni seen bëggan seen biir Cheikhuna Rasulullah du fa teew suñu yegg ci euh, ah juróom ñaari feeru jawhar loolu lu garaaw la ah ñun nag ñu bëgg ci dëkk suñu papa suñu soppee cheikh seydil haji malik si mawdo dëgg li mu wax waaw tongo tongoo waaw diggante ñaari taalibe waaw ñun nag ñun moom noonoo dafa bari suñ diggante entre nous taali taalibe taalibe Tidiane euh, waaw ndeke ni ñi ngi daggante suñu biir te yëguñu ko waaw bala ma cee tontu mhm. ma nuyu ak ziyaara mhm. Serigne Maodo si mhm. moom dafa bokk ci sama soppe ku ko sopp la man tamit ba ma gënee nekk gune amul fu muy conférence te duma ko fekk maa ko bëggal sama bopp maa ngi koy ziara di ziara tamit ay rakkam ñoom sëñ Babacar Sy Abdou ñoom Sidi Ahmed maam Alpha fàttewuma kenn di ci tamit jiital sama papa sama xarit docteur Moustapha Sow mm-hmm. waaw kooku moom mooy sama sama sëriñ mm-hmm. waaw moom dama daan nekk ak moom tout le temps maa ngi koy ñaanal wér ak wérle ak fanu gudd moom professeur Amadou Moustapha Sow waaw kooku nag moom sama sëriñ la mu xaddamu sëñ Abdou la bu mag a mag a waaw aspect boobu nag réer nañu bari. Mm-hmm. dañ ko féetale rek médecin bi. Mm-hmm, mm-hmm. dëgg la moom ñoo koy ziar bu baax alors que yaatu. moo ko moo ko sëñ Abdou Ba ay muqaddam lañ. waaw waaw. Ah. yonent bi dafa wax cheikh xulli asxaabika laa yuusi nii waxal say sahaaba bu ñu ma lor bu ñu ma lor man yonent bi bu ñu ma lor lor bi ñu may lor mooy lorante seen diggante ndax bu ñu lorante seen diggante loola ca man la jëm moo tax cheikh tamit taxaw ci loolu ne ñaari tijaan bu ñu tongoo ñetti fan dee dem sawara non seulement dañuy dagg ci tarixa bi mais seen cër mooy sawara la ilaha innamal mumin ixwa lu ci yàlla teg yi bayna axawaykum laallakum turhamun boo bëggee ñu yërëm la yërëmal sa mbokk julli di nekkal ak ñoom benn kon loolu mooy la condition sine qua non ku bëgg yàlla yërëm la yërëmal sa mbokk kuy yërëm sa mbokk nag jubal moom c'est magnifique les nombreux saints de la tariqa tidiane parlent tous des nombreux mystères de la Jawartu Kamal. Peut-on avoir une idée euh, de Jawartu Kamal et qu'est-ce qui fait qu'on ne la récite qu'en état de, en état de pureté? Wow Kamal. yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa moo ko dicté mhm. dicté laa wax de mhm. Cheikhu Tidiane radiallahu taala mhm. li tax mu dicté ko da koy firil salaatul faati ndax salaatul faati yi waxi yàlla la waxi yàlla nag day am lu koy firi mhm. ni haddis di firee alxuraan mhm. noonu la jawhara ñëwee di fi eh, di firi salaatul fati mhm. te salaatul fati c'est compact léegi nag jawhara dafa ñëw pour indi melokaanu yonent melo yi ak origine yonent beeg yépp lay indi looloo tax ñu ni comme que jawhara boo ko jàngee yaa ngi ànd ak yonent bi kon kuy toog ak yonent bi war ngaa pur Mm-hmm. loolu mooy jagle jagle bi nga xam ne moo gën a rëy ci jawharatul kamal mm-hmm. te jawharatul kamal boo ko jàngee ñetti yoon ñu bindal la le zikr du cosmos tout entier ñett rek ñetti jawharatul kamal boo waxee benn jawharatul kamal am nga le zikr du cosmos tout entier du début à la fin du début à la fin moo tax Cheikh Tidiane ni mu kenn xamul lan la kenn xamul lan la amul pay amul pay wallahi dinañ ci ñew dinañ ci ñew dinañ ñew ñëw waaw ki respecté wërd bi ni ko diglé waaw njeexital li lu muy nekk ci mom ala ah, la question saadatu daarayni tariqa tijaan mhm. ci niñu ko sax nosé. Mhm. c' pas contraignant. xam nga tariqa yi dañu am histoire. bu njëkk c'était le soufisme par le corps. Mhm nit ñi dañuy de seeni jabar dañuy àddina du di woor di def xamul mhm. booba c'était le soufisme par le corps mhm. ñoom Ghazali ci yooyu la jaar mhm. moo ku mel Ghazali bala moo jot yàlla sonn na lool nekk na lu mat ans ci lëndëm yëf yi di dox ba ñëw ci imam Chazali bi ñu ci Chazali ci li commencé def le euh, le soufisme par la louange ñu indi dawaayirul hamd léegi fii dañoo sant yàlla taxaw ci sunna taxaw ci charia ba àgg moo tax ñu indi formule yu simple démocratiser tarixa yi ba nga xam ne ñëpp mën nañ cee dugg man nga jàpp sa liggéey jàpp sa tariixa ba àgg ci yàlla àgg ci yàlla léeg-léeg sax yow yaa ngi jàpp sa wérdu di wérdu hmm. amaana sax ci mbedd mi ngay dajeek yàlla yonent bi mu téye sa loxo yóbbu yóbbu la ci yàlla amaana est-ce yóbbu ci yàlla maa la ko